ki nag mooy aada booy bool bi mu fi mujj le 8 janvier loolu moog arobas jël bu rëy rëy la daan bu gaaw sax maa lay bëgg di la féliciter. la xaaral maa lay bu baax di la nuyu di nuyu sa di la bëgg bu baax a baax quoi. ginnaaw daan nga arobas léegi foo jëm. gàmmu laa bëgg a bëreel. xarwoo. bar sëñ Bamba maa ko man. dafa am mbër xanaa gisoo li mu def dafa am mbër. aada booy bool nga wax doomu mbawar bi bande géew man bande géew laa xaarim anta Gamou Gueye laa bëgg a bëreel kase kase kase ma wane sam bopp. xanaa def Tapha Mbeur. suñ ci yeggee maa ngi moom nga xam ne cin bokkul safin de. lu cin bokkul safin. en tout cas daal cin bu bu cin bokkoon safin daal kenn du yekkal sa morom. dégg la moom. waaw loolu dama bëgg mën a xam moom ñoom ñu bëre. Mhm. à part Gamou leer mais Gamou laa gën a bëgg comme ba wax dañu naan tey booy bool dee. ndax nga ko day dóore. looloo baax kooku lu muy xeexee baaxul. lu muy xeexee da nga mu a gis mu taxaw fi mu taxaw dóor kenn mu daanu xeex yëfam la la de bàyyil waaw lébu day dara man may mboor mboor nekk ci àll bi di sàmm ay nag xaw ma loolu sàmmi nag man gàmmu gi dafa maa jaaxal barki sëñ Bamba Mbacke su ma ko jàppee ma koy nuwaay ci lu yàggul dara nag bu la jëlul ma jëlul ma xam daf maa ragal rek wiiri wiiri jaari ndaari kooku du ragal tëngeej yàgg yàgg nañuy booy affaire bi tëngeej laa jógee nii de <laughs> te tëngeej laa delluwaat lu waral jóge tëngeej delluwaat tëngeej ah fan la nekk arabas fan la nekk écrit tëngeej la nekk waaw mais damay xaalis anta man bëree gumaag ñoo war a bëreel ñu bëri nanguwuñ loolu. ñoo war a bëreel. billaay wala naa naa ubbeekoo gàmm gi ba pare su ma ko ubbeekoo rek dina xam sama adversaire su promoteur yi pare pare nga. ay tabaaleer yëpp dama bëgg a bëre ñoom mais ñooñu dama xam ne tey da ngay ñëw rek daan la mais dama bëgg combat mën a gàmm gi mu am tension boo xamante ne ñëpp dañuy yaakaar tey ma dee te xam naa ne man bu ma ñëwee mooy gën a yomb samay combat. incha allah gàmm gi du ñeexu ñebe de aada. xaalis ma du ñeexu ñebe de waaw man ma ñeexu baas du ma cere ah. waaw la may wax ci Ardo Liss Ndiago waaw Ardo di ko ñaanal yàlla may ko ndam rek parce tamit ñun ñëpp bu ñu amee sunu bés day teew kon bu amee bésam ñun tamit dañuy bàyyi la ñuy def ñëwal ko di ko xamal ko bés buñ soxla la na dal rek bañ a topp ruube yeeg yenn yi xam nga lamb gën lay dajal jàmm lamb du coow mbëru Kanté lay dajal Ibrahima Kanté waaw Ibrahima Kanté du dërëm mbëri jàmm gën yi sa su dañ leen di nuwaaye yoo waa parcelle ñoo man fuuf waaw dafa am coow waaw coow la rek coow moom dara coow yàgg na si àdduna mais bu ñu jëflantee ba pare rek ñu xam ne coow du dara coow moom coow la rek. amoo lan loo digal Ardo kon. kan si. Ardo amul lan loo digal. moom mu jël temps rek bàyyi leen ak wax ji bu ñuy ruube mu jël temps xam nekk ci làmbam te Ardo dal na quoi ni koy gisee mbër la de bu ko xool nii de mais neexul ba réer de bari sëñ Fall Liss am na combat bu rëy nag lu leer laa lay wax. kontaanee bu la. ñu ngi koy ñaanal yàlla ndam nag. kontaan